damay wax itam ni àdduna bii ñu nekk comme comme pièce su théâtre wala sax àdduna bi comme film te film bii di àdduna ñun ñëpp xam nañu ki bind scénario bi moo tax dafay am solo ñun ñi nekk ci àdduna bi war a jouer film bi ki bind film bi muy yàlla subhanahu wa kenn ku nekk ci ñun xam personnage bi nga doon ci film bi xamit ban rôle lañ la joué lu fii kenn ku nekk ci ñun bi ngay ñëw ci àdduna yàlla définir na rôle bi nga war a joué damay wax ni ñaar a ngi nii ci tàmbali nit ku nekk ci film bi war nga ko bàyyi xel bi ci njëkk mooy yàlla subhanahu wa taala dafa ni inni jaa'ilun fil ard khalifa. yéen nit ñi bokk na ci rôle bi ngeen war a jouer ci suuf man yàlla yéen a ma fa représenté yàlla bi mu déclaré loolu malaaka yi dañu ne ko baadu da fa nar a yónni ñoo xam ni dañ fa nar a nekk di yàq ak tuur deret kon yow mi nga xam ni da fi représenté yàlla bàyyil xel loolu képp ku nekk ci àdduna warul nekk sa rôle nga yàq wala nga wala ngay tuur deret ci sa bakken beneen bi yàlla subhanahu wa taala dafa ne toujours ci suñu rôle binduma leen lu dul ngeen jaamu ma loolu mooy rôle bi nga xam ne moo ca gën a principal personnage yi nag yàlla bi mu la bindee indi la ci kaw suuf ci film bi su la defee nit da ngay jouer rôle nit nit da ngay jouer rôle nit ginnaaw ba mu la defee góor bi mu la nit def la def jouer rôle góor jigéen jouer rôle jouer rôle jullit waaye damay wax ni film bii di àdduna des fois mu film comédie ci yow des fois situation day neex da ngay rek film bii di àdduna des fois mu film boo drame des xew-xew yu metti yu dal sa kaw walla yu dal ci àdduna bi nga tiit des fois itam àdduna film bi day doon filmu policier wala filmu guerre dàqante bi am indi ñëwal guerre waaye lenn dina dinaa leen ko xamal film bii di àdduna amul trucage lépp dëgg la amul trucage lépp dëgg la waaye li ci am solo itam ma koy fàttali nit ñi mooy rôle boo mën a ci àdduna bi yow jullit bi rôle boo mën a ci àdduna bi nang ma bàyyil xel ñett yi yi de jàpp naa ni soo ko faussé ci sa rôle ci àdduna gawuma bés pénc nga am ci Oscar yi te ñett yi ma leen di fàttali ci benn téere bu ñu naan lax dër yi la nekk mooy ñett yoo xam ne ku ko bàyyiwul xel boo moytuwul di nga faussé sa rôle bi ci njëkk mooy wala yaxillu lahu an yafaala fialan xatta yaalama xukma allahi fiihi mooy ak rôle boo mën a ci àdduna bi yow jullit bi yow muskallaf bi lépp looy def ci àdduna lépp looy def laa wax war nga xam lan moo ci àtteb yàlla maanaam lu ci yàlla bëgg ak lu ci yàlla bëggul xam nga ñu bëri dañuy discuter ci julli faratay julleeg sunna yéeg njàpp farata yeeg sangu yi ñoom pour ñoom yooyu la la yàlla lijjanti leneen lu ñuy def nag à seenu jaamu yoonu yàlla nekku ci déedéet lépp looy def war nga xam lu ci yàlla bëgg ak lu ci yàlla bëggul beneen bi wala yatlubu rida al maxluqiina bi suxtil xaalixi Moussa bépp rôle booy joué ci àdduna bu mu lay jaral ngay sàkku mbéguk satisfaction wu ñi ñu bind tey merloo ki bind muy yàlla subhanahu wa maanaam bu la benn doomu aadama jaral nga bëgg mu kontaan tey merloo yàlla kenn jaru ko tiim ay nit di leen dikk ñuy bëgg te leer na la ni yow li nga leen wax danga bëgg ñu kontaan rek mais doo ko def lenn jaru ko ñettel bi la taata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq bu la aduna rôle boo mënti jouer bu la kenn jaral ngay top mindeef bay wan yalla ginnaw ngay top mindeef bay moy yalla kenn terawul kenn top kenn toppal sa borom keur topul sa wayjur toppal sa serigne bokal ci parti politique topul sa leader mais ku ci meuna top itam bu mu tax nga nga nga nga nga ngay wan yalla ginnaw manam lepp loy topé nit na doon yalla mawali ali mawali salatu wassalam sax so xolé khutba bi bim ñuy wax ñu dimbali suñuy kilifa diine waxul ngeen dimbali len ni rek dafa ne ngeen dimbali len ci mbiru diine manam ce kilifa diine nangu terrain jàmbur di ko xëccoog nit mu dajale leen ne leen kaay leen ngeen xeexle ma ndax kële day xëccoog man terrain te ci loo xam ni teguwul ci dëgg ngeen ànd ak moom sangam Seydina Limaamu sant ñu loolu kon nañu nañu nañu nañu bàyyi xel yooyu yëpp